ay gars yi tey la 15 août moo tax ñu déplacé wu ñëw fii ànd ak yéen fi nga xamante ne ni moom mooy place u Saly euh, war fekk fii sénégalais yi nga xamante ni dañu ñëw pour féexal seen xol jógee fu nekk ci biir Sénégal ñi Dakar ñi ngaay am na sax ñoo xam ne ah, bitim réew lañ jógee ñëw ngir def ci li nga xamante ni moom mooy feetu 15 août fi nga xamante ni moom mooy plage ñenn ñi démb ci guddi lañ fi ñëw ñenn ñi ah, yàgg nañ fi ñu ngi seen i vacances jël seeni néeg nekk ah, ci hôtel yi nekk ci côté yi ñenn ñi tey ci suba lañ fi ñëw ngir def li nga xamante ni moom mooy sortie comme niñ ko tàmmee ci réew mi saa saa yu 15 août jotee damay dugg ci gars yi interroger leen benn par benn ku nekk wax ma fu mu jógee lu ko fi indi ak lan ak nan la journée am nar a demee ca kanam tuuti. salaamaaleykum jaaykatu màdd. màdd lu muy def ci nit yow. màdd vitamine C ah. vitamine C ak lan. dama lay laaj màdd lan lan lay def ci doomu aadama. ok d'accord léegi man bàyyi ma defaral sama bopp. donc bu ngeen ñëwee ci place bi di ngeen fekk ñu fiy jaay màdd am na ñuy jaay ay sëru Bob Marley yu oyof yooyu nga xam ne yenn saay yi bu tooyee dafay rafet <laughs> ñoom sanu xam nañ sër yi ma wax eh ba cop bii dafa ngand dafa ma beneen defaraat ma beneen ku moom bi bii nga jàmb nii yaa moom bi am eh lekkuma sa màdd bi grand da nga def naka coono yi yaa ngi doxal maa ngi doxal waaw yow fan nga jóge man Grand Mbour Grand buur waaw euh, chaque 15 jours da ngay ñëw fi di ko fête waaw dama ñëw di ko feete quoi. mbay man dama la gis nga def jiin def sa chemise toog jàpp sa njàmbur ana ana yu yu kii nax sa goro yi. <laughs> yi ñuy sangoo. <laughs> non dama nag sama dama nag sama soxna quoi. dama sa soxna ana soxna si. mu ma bàyyi quoi. daa mel ni da nga la ñëw xool xale jigéen yi nekk fii de. non pourtant tel dama ñëw pour divertir vous quoi. Ah, ah yow ñaata at ngay ñëw fii 15 août euh, ñëw di ko feete fii ci plage bi et tout. bon disons ça fait 10 ans. ans. Mm. ok euh, ren ji ak at yi nga fi daan ñëw euh, ndax am na différence. waaw xaw na am différence hmm. ok lan nga jàpp ne moo waral différence bi ak lan lan moo tax nga gis ne am na différence. je pense c'est le problème de du coronavirus quoi. ok donc mbooloo mi ni mu toll nii kon daan na ko ëpp. daan na bu baax a baax. ok fii dañu fees del ba pour nga dox sa problème la mais à cause le problème du coronavirus bon am na ñu bëri xam ne ñëwatuñu ñëwuñu quoi ñu ne jógee Thiès. ñi beneen yeneen dëkk yi xam nga ñëw fii divertiru jël seen temps mais malheureusement avec le coronavirus tout tout a bousculé quoi. ay ca maa ngi lay jaajëfal. baal ma dem xooli gars yi ci biir ndox mi. xool ñoom nu ñu toog. waaw loolu la mën naa ma caat ci madd bi. waaw ma ci madd bi. ñu daal di dem. donc gars yi ni ngeen ko gisee nii. Euh, kenn ki ma njëkk jël grand mbuur la jógee damay dem xooli ci sama gars yi fële. ay eh, kaay booy bi ni tàggul yaayam ak papam kan la di yow la yooyu dugal à ton âge lan ngay def ci place bi nga ne lan ngay ci place dëggal maa ngi ñëw. Hmm? yow laa bëgg a laaj. lan nga fi def foo jógee. ñun de ngi jógee Ngaye Mexe. Ngaye Mexe nga jógee ba fii. waaw. ñaata ah, man am naa 15 ans. 15 ans nga bi ngay ñëw fii say parents yëg nañu. ah waaw. loo leen ba fii. damay sangu ji rek piscine. dañuy def. ok. kañ ngeen départ. ñun départ nañ 6 heures. ban heure ngeen fas yéene ñibbi. léegi ci kanam rek 5 17 heures 17 heures et demi. donc yéen 6 heures du matin ngeen quitté ngaay pour ñëw fii nga xam ne moom mooy Saly pour sangu def seen sortie. waaw. ok ñaata personne ngeen. ah loolu de moom jàpp ma ko. nombre bi bëri ngeen man ngeen 30. non non. 35 ngeen. ma duñu 35 de moom. d' accord da nga ànd sa gel wala. non non. àndoog sa gel. ensemble rek ñun ñëpp. non ndax da nga àndoog sa gel wala àndoog sa gel. ànduma ah, ak sama gel. àndoog sa gel. ok amul benn problème donc xaaral bu ma jógee ci moom ma dem ci yeneen gars yi ma xool nuñ toogee da ngaa bëgg ma laaj la maa ngi ñëw kaay. yeneen ndox mi ñëwal donc am naa fi beneen guerrier xaaral moom ma laaj ko yow gars yi yéen a ànd foo jógee ngaay ayca kaay ban heure ngeen jógee ngaay yow. ñun ngaay ay ay huit heures yooyu rek. lan moo tax ngeen jógee ngaay ñëw ba Saly pour def sortie ah <coughs> neex rek. dafa neex rek waaw. ok ñaata personne ngeen da nga ànd ak sa gel yow. non ma amoo mënoo amoo gel moom. amoo gel <laughs> loo fi def yow kese yaay sang. man kese maay sang man damay sang jigéen ñemee sang ma sang. ah yow jigéen ñemee sang <laughs> jigéen ñi nuñ lay sangee. ah jigéen ñi lay ah, neex daal neex na daal moom. ah saa duñ la sang ba pare nga bañ na doo jën ndox mi. Ah, da ci am ne moom. da ci am de waaw. <laughs> lan moo tax ngay bañ ndox mi. neex neex ba ma nekk. Ah. waaw. ah mais bu bu ñu paree quoi ba neex neex bi jeex. est-ce que dina yomb nga jënd ndox mi parce que daa mel ni. doo doo doyal moom euh. waaw. <laughs> ban heure nga fas yéene ñibbi. ba ah. ah, ay 19 heures yooyu waaw. waaw na amul problème léegi yow maa ngi lay bàyyi nga feetu ji. waaw ñu feetu ba ci kanam rek ñu ngi nii ñëpp a ngi. ah ñoom ñëpp a ngi nii. Eh, yaay booy nu ngeen def. fu ngeen jógee yéen ñaar. Hmm? fu ngeen jógee. fu ñu jógee. waaw. yow foo jóge fii mbuur Mbour nga dëkk. Mhm. chaque année da ngay ñëw 15 jours. sa copain wala sa. non non suñu waa koñ rek. seen waa koñ rek ngay àndal. waaw. accord ñaata at nga fii ñëw. Hmm? man de un ba un an rek. un an. Euh, tey jii ban nga fi ñëw. Hmm, ay 12 heures yooyu bi neex na wala neexul. ah non mhm, daan na gën a neex daal. daan na gën a mhm. dafa wéet wala nu mu demee noonu. waaw dafa wéet wéet na lool. dafa wéet merci beaucoup xaaral ma dem ci yeneen jantal gars yi ma xool ñoom nu ñu tooge euh, sama gars yi def yéen ci jàmm ah loo sama gars yi nañ def naka coono yi web la xaaral ma ci digg waaw xaaral ma toog ci digg bi parce que ni ngeen toogee dafa rafet sama gars yi naka mu. waaye kontaan rek ci yow. yow saa yi sa very nice na waaye gis nga mooy loolu la ñëw rek bëggal suñu xol mooy loolu a xam Soulage def lu ñu saf. léegi yow fan nga jógee. Ngaay Mexe. Ngaay Mexe nga jógee. yéen ñëpp xanaa waa Ngaay ngeen. non xaaj bi waa Ngaay nag foo foo dem nag moom xam nga waa Ngaay bu doole parce que Ngaay moom mel noonu quoi ñun dañoo dem wane fa suñu rek dañ fay dañ fay gagné lépp yaa ma gën a xam. léegi ñun est-ce que duñu wax président Macky Ngaay gi waaye ngaay kay dafa war a am géej moom wax dëgg xalli koñ yooyu yëpp ñëpp mën nañ ko dagg def ko géej ñu ne wuti fanañ fi ñu dëkk ragaluñ loolu bilaa walaay taa ragaluñ loolu gaa yëpp a ngi nii ay boo ay booy ngaay lañ xam nga lii lañ nam xam nga ñëw defal suñu xool na bàyyi frontière yi ñëpp léppuy dugg léppuy circuler xale yi liggéey am xaalis ñëw di bëggal suñu xool am déet waaw noonu lañ ko bëggee nag su copain yow koo àndal yow waaw ñun ñëpp ñoo ànd mais mais man gisuma gisuma ngeen ànd ak gel yi comme gars yi bu ñuy def sorti ni ñuy ànd ak wóoy non gel yaa ngi nii gel yi yëpp ñun la àndal jël yi ngi seen yëpp ñun ñoo leen jëlee ngaay ba fii quoi. mooy loolu dañoo couplé. waaw dañoo couplé dañoo couplé kay. mooy. maam nañ ko bàyyi góor yàlla la bàyyi faal nañ ko bàyyi mu liggéey liggéeyam dañ koy tooñ di tooñ ñim àndal. d'accord merci. ñoom ñoo ñoom ñoo di wax. waaw dama bëgg xam ne tey mbuur ala daw mee na quoi vraiment sortie bi neex na sérieux na vraiment booy respecté nañ affaire yi te isu tamit xam nañ fi ni yem quoi oh, kenn soriwul ci géej gi ñëm ñëpp xam nañ fi ni yem mais yow kenn mosulaa naqal non non non man kenn ma naqal parce que man ñun ñi ànd ñëpp kenn du ci du ci kenn du ci kii kenn du ci sori quoi sànq ji nga am grand fee la ma jàpp naqal ma si biir ba sama bakkan di sotti te loolu du yoon d'accord loolu du yoon yow eh non loolu du yoon eh saa yow yow jigéen mos na laa sang ci biir géej ah jigéen ñun ñun loolu miin nañ ko loolu suñu yëf la dañuy sang bañ bañ bëgg ñoo leen sang ñu ne sang mooy loolu te buñ pare jug tooñ la wane suñu bopp ñun ñoo moom ndox barke suñ faalu mbaage déggoo ma de ñun ñooy borom ndox ñun waa ngaay ragaluñ loolu doxal doxal sama waa ji naka mu neex na ba pare comme nañ site internet bu mag bi ñoom ñoo xam ne lu ñu dugalul baaxul. déedéet waaw. yéen a fi ne. mais suuf si metti na de. grand nañ def. léegi nag euh, gannaaw bi ma jógee ci petit bi may dem nële ci xumbaay bi xool gaay yi nuñ tooge kaay dañuy foofu foofu xale papa yaay doom dañuy tëdd nelaw salaamaaleykum Malick Ndoye mu nga fa di rek eh bu de yow. am eh, ko papa yaay doom temps foofu xale dañuy tëdd nelaw papa yaay doom dañuy foofu foofu xale. awa ba tudd dégg maa leen koy présenté sama promotionnaire la lu ma xam ci lu boon rek moo ma ko wan kalaas. naa la. <laughs> maa la xam yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm loo fi def. dama gunge sama ay gan. da ngaa ànd ak sa far. déedéet aw nekk sa man rek nga noboon. waaw la. lii mus ngeen kaa gis ñëw en direct naa man rek nga noboon te nit ñi di ma seetaan moo ma yàqal ci ñi nga xam ne stan yi maa ngi leen di wax na yéen laa mës a nopp looy def. léegi moo tax solo deux pièces nga sang. déedéet soluma deux pièces. ñaata pièces nga sol nii instant yi ñaata pièces nga def. ma de. non lii filmé nañ ko ba pare wàcce sa kanam te lii ñaata pièce nga sol. am ah, na doy soluma gisoo ma sol jiin o. la jiin bi un pièce un un kii bi beneen pièce ak yeneen pièces yi muy nombre total pièce. looy jaay yow. zi. <laughs> ziwu kan ngay jaay. auzu <laughs> billahi mina seytaani rajim kii ko yaayam ay sanu kan sama waaji nee na sama télé lu ma may rek naa ko def sama télé may na ma ma jël la yow. waaw yéen da ngeen di doxal askan wi ba pare da ngeen nekk askan wi ba pare da ngeen a bëgg askan wi. Mhm. waaw man dama lay rafetlu ba pare dama laa bëgg. ah waaw kon da ngay suivre Seneweb. waaw man damay suivre Seneweb. ah man tamit bëgg naa la de. waaw lan moo la gën a neex Seneweb. man loolu moo ma gën a neex xam nga jamono jii Macky Sall dafa jël askan wi rek xoolal lu dis lu ne mu teg leen ko ngeen di na. kaay ma jël la nga wax. Matar Matar bu dee am nga ci dara ci Macky Sall mu xaw a yërëm senes bi sene bi sonn noonu bàyyi maa sama tànk yi fi ne damaa mi nee bari xoolal Matar ba sonn. ah bon parce que Sëñ yow lan ngay def ci plage bi kon. man lan laay def ci plage plage bi li ma fi def. plage bi dafa doon béréb boo xam ne tey jii xam nga tey suñu feer la. dimanche amul askan wu xëy gox bi. Mhm. ñu ñëw di feetu town bi waaw ñëw di feet lu ko suñu cosaan. d' accord d' accord loolu moo yow léegi yow chaque 15 jours da ngay ñëw fii. waaw man chaque jour 15 jours ma ñëw fii ndax fii man sama stress moo koy wàññi man mooy wàññi sama stress. ñaata 15 jours nga fi ñëw. moom bari na moom fii chaque jour dama fi ñëw xam naa dundul tombe rek. Ah. man man ba ma fi ñëwee ba léegi maa lay door a gis tey. wax nga dëgg waaw mais dama fi ñëw béréb bi sama la. mais yow mais mais yow am nga gel. man man moom jigéen moom wax dëgg yàlla Matar doon sama problème man daal li ma sonal Matar wàllum li daal moom ma sonal yi. luy barkeelu yi. mooy tux. lan. loolu rek. sangara sangara tamit moom mooy loolu sàngara yaa ngi koy xeeñ waaw maa ngi koy xeeñ mais du ko jël ma ko taxal ku la ko taxal xam ne xañ na xañ na kii soloon sama yére yi moo ko tax mataar mataar and andrité télé du andré waaw télé ngay wax ak man xam nga télé télé askan bi nga jël loo xam ne dafa am sens ci man mais saa ma xam nga mënuñu toog fii nga ne ma da ngay barkeelu ne cigarette rek ngay jël tag may xeeñ sàngara ma laaj la ndax da ngay xeeñ sàngara nga ne dañ la ko takkal man d'accord Matar yow ma la xeeñoon ay day sax Matar ma wax ne ma lii yow Matar Matar yaa fi nekk askan bul doxee noonu d'accord li ma lay bari na déet man sàngara rek nga ma xeeñ xeeñoo lu bari te nun ngoo kon Matar émission bi day jeex yaa koy jeexal yaa koy émission bi jeex eh, émission bi jeex émission bi jeex. salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. c'est Lamzo. foo jógee. man mbuur fii xanaa. kooku la ñuy lekk gars yi ngeen baal ñu ah. dañ ñëw fi ñu ñuy teral. waa gis nga lii demoo am Mbour ndeysaan. bu ngeen ñëwee ci place bi yaa ma gën a xam fekk gars yi. mu ne la lan. tey bàyyi ma toog ba yegg suuf sax. d'accord léegi yow. luy dil bi nga ne. waaw xam nga rek ñëw place bi yaa ma gën a xam changer air tuuti mooy lool. Mhm. puisque Mbour lañ jógee ñëw fii xam boo liggéey ba dimanche da nga war a ñëw changer air. Mhm. Mhm, jéem a beneen dund mooy lool. d'accord d'accord. ñaar at ngay ñëw fii. 15 août. ma 15 août man ay affaire 15 août sax man tey dama toog am envie suñu boolee ne dañ defar ay affaire fadaaya defar fadaay yu 100 francs yu juróom ñoo toog fii waxtaan ñun suñu booyee waaw. <laughs> faraay noo jaayuñ ko mais ku bëgg moom ñu jaay la wax dëgg yàlla faraay yi cent franc yi fukki dërëm yu juróom tey da ngeen koy lekk jaru utal prix non ni ku nekk ak fa sa doole doole am na ñoo xam ne ay ginaar lañ indi ma gis naa fee gars yi misu ay mbaam xuux mais ñun loolu lañ am mais ñu ay faraay lañ am moom lay ñëw fii toog lekk parce que ku nekk na ngay feetee sa feet yéen bu la neexoon yéen waa Sénégal xam nga am ngeen xaalis yéen partout dans le monde ñu ngi leen ah, car macha allah non dañ leen di catu parce que da ngeen a yor wax dëgg yàlla li ngeen am ci ay vie macha allah dafa bari trop sax bu leen neexoon ngeen ñëw fii misuy seen i ginaar teg ko fii ñun nag ay fataay lañ yor ku ci nekkal la nga am ngay ndugee marché waaw dëgg léegi ah euh, yow euh, mën naa xam booy bi di wax ni je suis enceinte lu ngeen seet. booy bi non sama gel la bokk wax dëgg yàlla. léegi lim la wax noonu. non je suis enceinte loolu yàgg naa ko dégg. moom la wala du yow la wala du naar ah ah an barkeelu naa de wax dëgg yàlla te protégé wu ma woon. Ah, ah. non parce que e ne ma bu ne ma je suis entraîneur dama barkeelu naa damay assumer sama par maa ne am naa 15 doom fii ci Mbour te yëpp maay seen baay maay seen baay bi 15 doom la am 15 <laughs> yëpp Mbuur lañ loo bëgg a wax. non man waxuma dara. soxna si boo ma filmé dama lay filmé de. sama caméra moo gën a mag sa caméra. sànq ba léegi yaa ma xool li nga filmé. ma xool li nga filmé. Eh, eh, eh, noo def. loo fi def. damaa ñëwoon kii rek. koo fi àndal. samay doom. an seen papa. nekku fi. yow da ngay ñoom di ñëw vacances. non non non ah. man lu may lu may def télé la. ku ma ma filmé la yaa am filmé ma filmé la. non non ah. barke Sëñ Sall. Ah, kon garaawul baal naa la. ayca merci beaucoup. jaajëf gars yi ñu ngi nii ba léegi ci euh, place bi nga xamante ne nii moom mooy place u Saly. bonsoir. comment vous allez. vous allez bien. c'est comment. Carmen. Carmen. Eva. Eva je peux m'asseoir ici. vous allez. Et la fête t'amène à toi, oh. C'est bon? Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous venez d'où? Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. C'est dans l'équateur. Oui. Centrale. Guinée équateur, c'est la Guinée qui se trouve dans l'équateur. Dans l'équateur. Oui, oui, mais Ou bien sur l'équateur? Sur l'équateur. Sur l'équateur. Oui. Ou bien C'est le seul pays en Afrique qui parle espagnol. Qui parle c'est quoi ça Bon, je pas, je parle l'espagnol. Ah, hola, tu peux dire hola, c'est bonjour. Hola, buenos días, bonjour. Comment estás? Ça va vous êtes là euh, avec quelqu'un Oui, avec notre frère. Seulement Oui, seulement. Ok, euh, tu n'as pas ici Non. Bon, je ne suis pas là pour vous draguer, je pose tout juste des, questions comme ça. Voilà. Donc, euh, euh tu as un copain ici Non, je n'ai pas un copain. Toi Non, je suis célibataire. Vous Donc, depuis quand vous êtes au Sénégal Moi, depuis un an et quelques mois. D'accord. Toi Moi, depuis deux ans. Deux ans Vous êtes venu ici à, Sali ou bien vous habitez ici à Sali Non, non. J'habite à Dakar. Je suis venue ici aujourd'hui seulement pour passer une bonne journée. Aujourd'hui même, je vais retourner. On va retourner aujourd'hui. vous habitez ensemble à Dakar Oui. Donc je vais poser une question pour euh, Karbala et Omzito. Donc je sais que là où ils sont actuellement, ils aimeraient savoir où vous habitez exactement à Dakar. <laughs> Moi, j'habite à Angor, mhm. Almadi, et elle. Et moi, j'habite à Zone de Captas. Donc zone de captage pour Omzito, ça va ça, ça va le faire Oui. Omzito, il habite là Qui euh, C'est notre euh, euh, directeur technique, réalisateur, régisseur et tout. Donc c'est c'est l'homme qui sait tout faire. Et c'est quoi le rôle de votre c'est quoi votre rôle Non, ici c'est moi qui pose les questions. Donc ça va ah, Et toi Moi ah, le faire avec Karbala. C'est un ami. C'est un ami Non, je ne le connais pas. Non, vous, allez faire joli coup. Joli coup Avec qui Karbala. Il est où À Dakar. À Wakam même, c'est pas loin de, chez toi. Ah Oui. photo de lui Ah bon eh, moi une photo de Karbala. En je vais vous la photo de Karbala. Vous avez eu combien de mecs ici depuis que tu es là c'est privé. Non, justement, nous sommes en privé. Il n'y a que toi et moi. Non, je pas encore avoir un copain ici. Au Sénégal Mais il y a, des poursuivants. Il y a des hmm? dragues. Oui. Tu en reçu combien Beaucoup. Ah bon Oui. Ah Ils sont bizarres là, Sénégalais. <laughs> Depuis elle est là elle a reçu énormément De, de quoi draguer. De drague. Oui. Ok, tu as, tout refusé Non, pas tout. y a quelqu'un qui accepte des autres non. Ah, si quelqu'un me plaît, j'accepte. vous êtes toujours ensemble mm, Oui. Mais Carvala va le dégager ici. <laughs> c'est lui là C'est ton mec Non, c'est mon frère. Ah, Ok, donc lui, toi, tu es la copine de son frère. Non, non, non. non si... ça. Nous sommes, nous Avec sommes des Non, nous sommes des amis. Ok, d'accord. D'accord. Et vous trouvez comment les, les garçons sénégalais Les garçons sénégalais. y a des garçons sénégalais qui sont très beaux. Mmh. Comme moi Oui, ah, ah, toi, comme ça. Ah, ah. Okay. oui, c'est vrai, y a des... Bon, il très, très, très beaux Sénégalais ici. Comme moi, quoi. Oui, Mais sortons vraiment. ensemble, nous tous. Les trois. Ah. Oui, je, oh. je, je, je, peux vous aider, vous peux? deux. Oui. Tu peux Oui, bien sûr. Non, non, non. Tu acceptes pas Toi, tu acceptes Non. Non, mais tu, tu acceptes qu'on sorte ensemble Non. Tu acceptes pas Non. Pourquoi Je suis, yeah. suis, beau, non Je suis mieux que Karbala, non Oui, tu es. Tu... C'est qui Karbala Karbala, c'est mon ami, c'est mon vilain ami, là. Je suis plus beau que lui. Hmm? Je suis plus beau que lui. Tu peux me prendre. Oui. Tu risques rien du tout. d'abord et après je Tu vas comparer. comparer. Oui. D'accord. Tu, euh, bon, et tu peux pas prendre celui qui est déjà là. C'est mieux, non? Non, je dois d'abord voir la deuxième personne et comparer. OK, calme-moi. Ah. Tu vas pas me câliner? C'est quoi ça? Tu es jalouse? Ah non, non, non, jalouse pourquoi? pourquoi Elle est ça, celosa. Elle est celosa. No, no, no soy celosa. No, celosa. Eh, tres celosa. Tres celosa. ¿Por qué? Eh, porque amuro. eh, merci beaucoup, je vous remercie. À vous aussi. Eh, eh, bon, bonne, bonne, bonne fête. Je suis par Instagram. Hein? ¿eh? Moi ah, Oui, ah, oui. c'est Seneweb. Oui, c'est Seneweb, oui. oui. À ah, tout nous suivre. Oui. oui, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, merci beaucoup. Je veux commencer aujourd'hui même. Ah, donc, vas-y vite avant que les places soient terminées. Euh, d'accord, je vais les places sont limitées sur donc il faut aller vite euh, snapper ou liker. Voilà, donc il faut aimer et, tout faire avant que les places soient terminées. Ah. <laughs> c'est en direct sur Sénéweb TV, à sénéweb.com. ma ñëwoon tey euh, doon waxtaan gaay damaa war a ndox mi sax salaamaaleykum ay eh, copain comment tu vas tu comprends pas le français je tu comprends le français mais toi tu es beau là ah, tu as combien de copines ici ici au Sénégal oui il faut regarder la cam tu combien de copines un copain combien de copines un benn benn ok elle habite où à Niary Tally Nyari Tali, oui. euh, depuis combien de temps vous êtes ensemble euh, En 3 de octobre, on va faire deux ans. Deux ans Pourquoi tu l'as pas marié ah, Pas encore, Je dois terminer deux tours, après on va voir. Ok, vous. <laughs> <laughs> Ah, je ne pas. Deux, trois, comme ça. Lui, c'est un bandit, hein Non, c'est un bandit, hein non, bandit, non, toi, bandit, toi, <laughs> bandit, cas, toi, non. bandit, accepte, tu es bandit. non, c'est pas bandit. Mais tu, tu, tu, tu, euh, tu habites au Sénégal, désormais, tu vas plus rentrer. Non, je ne sais pas. Si je trouve un bon boulot, je vais rester. Ok, tu es, tu es là dans quel, cadre, dans quel cadre alors Dans quel Tu es ici dans, dans quel cadre Tu fais quoi ici ah, Moi, je fais des études. Des études Ok. Euh, je viens de terminer L2 en réseau informatique. Ok. vous connaissez Sénéweb Oui, je connaissais Sénéweb. Ah, d'accord, c'est bien. Oui. Alors, merci, c'est gentil. Allez, à, tout à l'heure. Et bonne fête, amuse-toi bien. yow da ngaa ñemee ndox mi sax salaamaaleykum Mon père. nañ def nii quoi. naka bagage yi. naka coono yi. waaw coono yow saa yi da ngaa sangoo sangu ba sa bët yi xonk yaa ngi mel ni ku pitim. waaw mais xam nga lu ko waral. Euh, ndox mi bu duggee sa bët day weex quoi. booy dañ lay nëqal xanaa. waaw xam nga booy yi dañ dañu cee bàyyiwul. ok ok yow mos nañ laa nëqal. ah mos laa nëqal. si. Eh, ñaata yoon. ñeent ah bagage yu baax. ah bon xam nga ñoo am ah, yi moo la lëkkal waa jigéen lay war a doon ah yu sew yi ci suuf ah bon moo la ñu mën ndox mi <laughs> mais léegi yow léegi yow euh, ñaata kii nga am euh, euh, ñaata ñaata kaawu nëqal nga mës a am ii grand moo doon compte loolu dina bari de hmm. léegi yow mën naa xam booy gel yi ndax mës nañ laa sang waaw au contraire waaw si ñoom ñoomay sang mais pas ñoom ñu sang ma quoi yow bu ñu la sangee des fois est-ce que jénn bi dina yomb buñ la sangee ba pare. waaw parce que doomu lébu laa pour génn dina dina ma yomb trop. ah nooy génne booy génn da ngay arrière. wala da ngay génne kanam. non da ngay bàyyi ba ànd ko ànd ko bi wàcc nga soog a génn. <laughs> <laughs> ah ma laaj ko kaay dama ko doon laaj ndax jigéen mës na koon nëqal. no moom nag souvent noonu lay demee ci côté bi. jigéen ñi ñoo koy nëqal. ñoo koy nëqal rek. ok yow léegi yow jigéen mës nañ laa nëqal. man mi non non non. léegi moom li ma ko mujjee laaj ba mu rey ma mooy dama ko laaj ndax jigéen ñi bu ñu ko nëqalee ba pare buy jénn nan lay jénnee day arrière buy jénn wala buy jénn day avancé. moom yow mos na laa dal. non mosuma dal ma pratiquement man moom wax dëgg yàlla moom. saa yoo jénn normal ngay dox jénn moom damay dox normal moom. ok d' accord. parfois vague bi may ma doole ma dem. waaw ma génn. ok jigéen ñi bu ñu la jàppee ci biir ba kii si suuf affaire yooyu. non chance chance boobu moom mosuma ko am fii moom moom. mosoo am chance kon yow ñàkk chance nga ko jàpp. non ñàkk chance rek. <laughs> merci beaucoup c'est gis ngeen gars yi ni ñu leen ko doon defalee ci Seneweb TV ak seneweb point com euh, di leen jaajëfal ñu àndoon ak yéen ci li nga xamante ne ni moom mooy euh, plage bu Saly Portudal donc mu am ambiance bu extraordinaire gars yi di fo di kaaf di ree di def lépp donc gis ngeen sama grand léegi xaw na ma dajji moom nee na buy jénn parfois day wala yenn saa toog ci biir ba mooy loolu donc di leen jaajëfal képp koo xamante ne nii yaa ngi ànd ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy seneweb tv ak seneweb point com leen jox rendez-vous ba beneen yoon wala beneen 15 août wala ñu nag yéen ba guddi ah mën nañ dem ci boit yi mën nañ dem ci hôtel yi mën nañ dem ci auberge yi am aawat ba beneen yoon jaayeen jëf